euh, l'arrestation de Bassirou Diomaye Faye euh, le numéro 2 de fait de de de de, de Pastef euh, il a même bénéficié d'un retour euh, de de de parquet euh, suite à un post Facebook bu mu def où il parlait euh, de la de la de la magistrature mais daan nañ daan arrêté ay leaders politiques nit ñi di diviser di diviser wu mais cette fois-ci avant à part waa APR te am na waa APR sax yu jàpp ne c'est excessif euh, l'opinion dafa jàpp ne euh, c'est c'est c'est l'arrestation de trop parce que tamit lu ñu mënta wax Bassirou Diomaye Faye ça fait des années qu'il est dans l'espace politique il y a pas un homme politique plus pondéré plus réfléchi et que que lui et puis fan la ñu jëm bu fekkee ne le citoyen amatul droit bu ko bu jàppee ne justice bi ni muy doxee euh, du yoon amatul droit wax ko kes ce qui peut déranger dans le poste de Bassirou Diomaye Faye qui exerce sa liberté d'opinion qui exerce son droit de citoyen en en dénonçant les agissements li muy jàpp ne ce sont des agissements désastreux euh, de la de la de la magistrature est-ce qu'on n'est pas en train de de de de, de d'aller euh, dans le dans le dans le fond mu mel ni léegi Sénégal un opposant euh, double bu nekkee waa Pastef amatul droit wax xalaatam ci ci ci ci réew mi. alors d'abord dama koy masawu parce que même bu dee ni amuñu xamante wuñu amuñu affinité jàpp naa ne rakk la jarbaat wala doom la ñoo bokk réew mi. mu yëngutu ci langue politique et comme je l'ai toujours dit moi de respect les hommes parce que xam naa li ñu daj donc loolu c'est la première chose la deuxième chose Maïmouna ñun ñun dañu bëgg a jiite ñun ñun dañu bëgg a jiite ñoo war di sàmm suñu bopp di sàmm suñu waxin di sàmm suñu doxin di sàmm suñu jëfin parce que ñi fi nekk ay millions de yi ñi ngi fi kenn wowu leen police kenn woowu leen tribunal kenn woowu leen gendarmerie dëgg bu ñu ñëwee dañ koy wax le problème que nous avons dans ce pays là nekk homme politique joxu la droit loo bëgg a wax wax loo bëgg a def def te dara du la ci fekk surtout que nag ku ci yëngu ñu ni la c'est un détenu politique alors que c'est pas. est-ce que lire nga le poste de Bassirou Diomaye lan dans ce poste là moo war a valoir un emprisonnement à à même un citoyen. Maïmouna su ma jàkkaarloog yow wax la dara par exemple pour reprendre. évidemment am na ba yu waat bad yoon dañu ko doon tere boo nekkee ci weeru koor yéen sax doo ko tudd mais si tu traduis le poste loolu la lay jox. waaw mais. <laughs> attends attends attends déglu rek. lan la lay jox si tu traduis le poste. traduis le poste. ah. am na juge yoo xam ne dañoo am feuille de route dañoo bëgg a euh, baliser le chemin à à Macky Sall. c'est pas ça un citoyen ah, sénégalais. oui mais un citoyen sénégalais n'a pas le droit de donner son avis. il a parlé de cannibale. Ah. Ouais. Il a, été, il a été très dur. Une chair. Euh, ça, mm. c'est la... non, ça, a été ce sont des mots. ma ne figure de style la non soo ko bëggee rafetal soo ko bëggee rafetal mu rafet soo ko bëggee ñaawal mu ñaaw mais li am solo li am solo may mën a ñun ñoo war a xoolaat suñu taxawaay mënuñu nekk dans un pays et on ne respecte rien respecté ñu justice respecté wuñu police respecté wuñu gendarmerie te bëgg ni ñun ay ay ay ay référence la ñu war a doon en commençant ci man jubuma maa gën a dëgg ñëpp mais soo bëggee jiite ay ni da war a jéem a jub mënoo jéem a wax loo wax sa ndey doo ko wax sa baay waru ko wax jàmbur loo nga xam bu ñu ko waxee sa mbokk mu naqari la waru ko wax keneen suñu bëggee réew mi jàmm am fi kenn ku nekk da nga am cër na nga ci yem. mais xam nga seen malchance may ma déglu rek may ma tuuti ba eggale le journaliste dafa am rôle am ci yem l'homme politique dafa am rôle la magistrature dañu am seen rôle nañ leen di ko bàyyi ak ñoom jox leen cër ñu war a jox la police la gendarmerie tout ce qu'on appelle des détenus politiques c'est pas des détenus politiques c'est pas des c'est des détenus ah, parce que man su ma nekkee homme politique ñu fekk ba may sàcc parce que je suis homme politique ñu ma détenu politique je xam nga lan moo commencé graw Sénégal c'est-à-dire tey euh, en réfléchissant un peu à l'arrestation de Bassirou Diomaye dama xalaat benn affaire j'en reviens à Adja Assou. aywa aywa daal l'affaire Adja daal l'affaire s'il vous plaît non s'il vous plaît c'est important quand on a eu des problèmes ñu ñu ñu ci affaire Adja Assou bi j'avais la preuve que le procureur ministre de la justice mettre na ko la pression pour que mu mu passer à l'arrestation de man et de Adja et de et de Adja Assou te li motiver woon loolu du woon teguñ ko woon fenn li li motiver woon loolu euh, voilà euh, le le ministre la justice de l'époque voilà bëggoon na neexal euh, benn famille religieuse mm-hmm. après il insulte le procureur le mm-hmm. procureur naroon ñoo xañ liberté ndaw si ñu téye le Serigne Bassirou Gueye il était en vacances au Maroc il m'entend il sait de quoi je parle il allait revenir le lundi pour nous entendre et mënoon nañu xañ liberté. Mm-hmm. c'est-à-dire après man bi ma ñëwee plateau. ma toog parce que man la ñu téye voilà non xañ nañ la mais après bàyyi nañ la. mais bi ma ñëwaatee plateau ma toog. j'ai saisi la tribune pour dénoncer le comportement du procureur et du ministre de la justice. ça veut dire que man mënoon nañ ma yóbbu kaso ça veut dire que léegi tout citoyen mm. qui se sent blessé mm. offensé désavantagé par la magistrature amul droit def ko nit ñi di yeewu di wax seen xalaat ci président de la république ñu ne nit ñi duñu wax waaye buñ ma jàpp de. ñu ah. naan nit ñi buñu wax seen xalaat ci ci ci magistrat yi. Bassirou Diomaye Faye c'est simple. mais Bassirou en faisant ce poste là il était loin de s'imaginer hmm. que ce poste pouvait lui valoir ah, une arrestation. mais Maïmouna déglu dama lay wax xam nga xam nga. c' est devenu grave hein, ce qui se passe dans ce pays là xam nga nit ki li nga àndul. si c' li nga non c' est pas grave. c' est xam nga lu tax c' est pas nga lu tax c' est li nga àndul mën nga wax ne àndoo ci. professeur Cheikh Abdou Diop moo ñu daan wax ni dëgg bu ànd ak saaga da koy néewal doole. waxal li nga bëgg a wax mais y' a un garçon boo nga xam ni man bokk naa ci ñi doon dox ba ñu génne ko de prison. maître Ndeye Antal jabaru Abdou Dialikan moom laa jëlul comme avocat mun ma duma laaj dara dama ci jaamu yàlla parce que c'est un garçon bu defoon benn poste wax ni benn stade bu nekk en France danañ ko def attentat tel jour un sénégalais un militaire sénégalais def poste non pas CRK il y a l'autre de Thiès alors le garçon il est de Thiès booy bi bi mu defi poste bi la les français gis ko interpo euh, kii interpol gars yi dugg ci ñu jàpp ko il a fait plus de deux ans man bi may yéeg ni gosse bi il est en prison def na presque trois ans donc encore une fois. même bu doon fo. même bu doon fo voilà encore une fois ñun ñoo war a seetaan ñun ñu ne ay hommes politiques lañu ay njiit lañu bëgg a doon nañu seet.